micro muy sama tax yow lan la. Xaadim mooy sama xam yaa moom. maa ñaari kàddu rek ñaari kàddu rek. voilà. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. di nuyu sunu papa ji muy père ba nga xam lu lu ji njaaga mooy njaag. di nuyu kilifa yi fi toog yëpp. di nuyu papaay papa saw sunu papa sunu xarit di nuyu père Bekaay Mbaye di nuyu axlu làmb ñu fi teew ñëpp kilifa yi fi teew ñëpp. di nuyu Mansour. di nuyu waa parcelle gépp fii ñëpp a fi teew parcelle ak géejawee ak ñeneen ak ñeneen fépp ñaatali ñëpp a ngi fi teew baax rek am solo fii lu fi waay jaay lu dul baax wàcc nga ko tey lii lan moo ko waral baax a yaru ak tabe nan fexee baax te bàyyi waxante lu bon bàyyi yàqante bi baaxul pe euh, euh, euh, Mansour nii la mën a mel ndax peer ba ñun ban koy xam du tey dem naa fi bële ba ndar fekk moom rek man musuma woon xam ne ndar la nekk moom ma ma ñëw ba fa ñu woo ma ne ma kaay wuy père ba ma dem ca université ba mu ne ma yaa war a bëri fi tey ma ne ko waaw mu woo ma ci ruq taal ma koosa ma wax ma lu baax tey su ko neexoon ne parcelle dong la dëkk waaye def ko moom sport lay dund sport lay dund père ba ma ngi ci social yi mi ngi ci ñu feebar mi ngi ci école yi mi ngi ci football bi mi ngi ci euh, jàkka yi mi ngi ci jumaa yi kon nag Mansour su melee noonu dañ ko war a ñaanal ndax xam ne noonu la war a mën a mel ndax da koo donn ndax Mansour nee naa ko Mansour ci boppam xoolal li ñu wax barki Demba Ndiaye li mu def ci école yi xool def ko ci eh, jàkka yi ah kon na nii la mën a mel nan ko ñaanaat yàlla lafal ko cet Mansour nee naa ko xool laal ma moomu ko ji waaw maa tey maa tey moo ma ko ji moo ma ko ji ku ko laal laal moom su fekkoon dafa mel ne man ku ma yëg ma yëg la ku ma yëgul yëgu ma la ku ma yëg ma yëg la ku ma yëgul yëgu ma la def maa yi barki demoo Njaay laa doon tudd mu def dérangement jóge ba Parcelles ñëw ba Géejawaay kon nag lu ma mënta jàpp lu mu xat xat xat xat dinaa ñëw dinaa ñëw moo ko liggéey yàlla na ko yàlla defal jàmm te musal ko ci saytaane ak làmmeñ ak cat ndax xale la day door nan na ko jàkk te bañ koo piis maa ko wax maa tey ku ko laal nag laal ma maa ngi nuyu Kandji sama frère maa ngi nuyu Kandji sama frère ah kenn yow père yow yow nii nga mën a mel ndax yow lamb seeg seeg fii dañ cee dox ay jéegu jéew baree baree bare tey am ay màggatum wuyu yoo xam ne ci lamb ji nga ndaw mag réer leen suñu jógee di la wax war la na xari ndax am nañu feebar tëdd ci lalu hôpital nga jël micro di wax ba ñu jàppale leen kon nak tay yow ku lay waxal lu ñaaw la xamul yàlla la yàlla jàppale li nga wax ci Modou Mbaye dafa sedd xol léegi ku nekk euh, xale bu ne da nga war a euh, fexe am sa ngërëmu waajur ngërëmu waajur doy na gàllaaj ngërëmu waajur doy na gàllaaj tey li père ba euh, waxal Mansour loolu rek dafa sedd xol père Bekaay waxal ko Modou Mbaye loolu dafa sedd xol ku nekk lool ngay ñaan ku am loolu jarul ngay wuti gàllaaj jaru ngay wuti gaal loolu rek doy na gàllaaj père Bécaye Mbaye père Bécaye kenn mënu ko yow mënoo fay père Bécaye ndax feebar nga ba tëdd lalu hôpital père Bécaye Mbaye di wax ba nit ñu doon jàppale waaw d'accord maa ngi la su ma fi téye teewal naa fi Guédiawaye gépp su ma fi téye teewal naa fi Guédiawaye tey jii teewal naa fi Balla Gaye ñoom Lac de Guiers ak ñoom Alioune Seye axlu làmb ñoom gugi tout ñëpp laa fi teewal ndax axlu làmb bee fi war ñëpp fi war a teew ndax Mansour da koo liggéey ci làmb liggéey ko ci sport bi moom sport lay dund ndax tey jii waa parcelle mënuñoo fay Mansour de lenn dong leen ko mën a fay def ko maire parcelle maire maire na ko ndax nit soo nekkee ci mérito man xaw ma woon ci la nekk ko woon waaye mérito ko ndax moo ko liggéey parcelle dafay ndàgg moo ko ma parcelle yàlla na ko yàlla defal ma ne moom bëgg ko sax ñun di def lu baax. waa dëkk bu ñoo war taxaw. sol seen dàll. kañ production maa la nuyu. mais dama wax ni Mansour mii mën naa ni man mën naa wax ci moom ndax mooy déwalu mafia bi leer na gaay leer na Pape Gueye leer na Papa Dabba a waxoo da ngeen ñëw ngént nag bu leen xuloo da ngeen ñëw ngént li kii du sa morom kii sa kilifa la kii su la xamee ngir yàlla ak kii su la xamee ngir yàlla ak non kii la. voilà. ba mu feebaree. nara dee. maa ko fekk hôpital mu toog ci ka ci plateau fenêtre bi dama jéem a fonto kii damaa xaj benn bekkaay loxo loxo loxo. personne loxo. waxal ci micro bi. yow icône nga ci lamb barki sëñ Tuubaa Mbàkke icône nga. sa papa la doomu mi doomu mi dañ maa bëgg. samay xarit lañ waaw dañ maa bëgg. yow icône nga ci làmb. ne lépp lu ma mos a wax jéggal ma ko te yi nag ñoo yàq làmb. saytaane bi yow. Sëriñ Bamba yaay saytaane. déedéet waaw bu leen xuloo bu leen bu leen xuloo. mais mais liiru. waaw xaarim dafa nii. yow da nga wàll yaan si te moom wàll yaan si. man ak moom bokkuñu. man nee naa ko nee naa ko man ku ma yëg ma yëg la. suur nii la mën a mel. Mm-hmm. ndax papaam père ba. lii la xam def ay social. Mm-hmm. di jàppale doomu aadama ma nga ca jàkkee ma nga ca jumaaya ma nga fépp amul fenn sens soo demee ndar soo demee ndar ba fekk ko ndar nga xam ni Mansour nii la mën a mel ndax papaam père ba lii la xam tey jii Mansour ñëw jaar ci tànki papaam tey am doom duppee ko papam muy père ba mu nekk rafet li ñu koy ñaanal yàlla na dund ba di ko ñaanal soxna waa père ba papa kii euh, Mansour su melee nii du ñu ñun ndax papaam tey jii Mansour ma nga ca social ma nga ca jàkka ya ma nga ca école ya ma nga ca lépp nii la mën a mel demb rek ku wax feeñ barki démb rek dafa dugg ci école yi moom Mansour joxe ay fourniture xam nga mais am na ñoo xamante ne nag luñ duufali seen i poos la ñu indi man. comme kan comme kan du tudd tur. déedéet fa la nga tudd tur ma rek déglu ma ma rek dama lay wax dama lay wax buy ma tey lii mu def nii insigne la ci combat yi mu am. xoolal fii gisoo fi kur sol xonq moom rek ko sol rouge dansé mel ni kuy ñaxtu. mais li ay defar la ci yow. man yow bokkuñu. man yemoo ma fii man ak yow bokkuñu comprendre man damaa sañse bul soxor man lii su ma ko solee damay tojtal man mas may tojtal maa ko xam kii dafa yaa la gis na man waxu man man indi ma fi gis na man ma xamale benn affaire Mansour moo fi indi ku ma yëg ma yëg la Mansour nee naa ko maire parcelle da ko mérito ndax social waaw barki Serigne Bamba mérito na maire parcelle waa parcelle mënuñu ko fay ndax social yi muy def ci jàkka ci école yi ci sport bi vraiment moo tax baax rek am solo waaye noonu la mën a mel ndax père ba mooy papam man daal maa ngi koy ñaanal jàmm yàlla musal ko cet at làmmiñ nee naa ku xolaal laal ma. ma Mansour barke Sëriñ Bamba ku xolaal laal ma. engagé nga de. waaw maa tey engagé moo ko jëf sama diggante ak moom barki Demba Ndiaye laa doon ngénte mu def déplacement jóge Patte Sagne ñoo ba Guédiawaye kon nag su xewlee dama ciy takk rip lu dul lu mu xewle dama ciy takk ndax moom moo ma ko ji mi ngi nii moo ma ko ji moom moo ma ko ji. moom nga invité invité woo. ah bu ko nuyu de bu ko nuyu Bamba kii xoolal laal ma. si man la ko déggee man maa kii ku xoolal ma. de maire parcelle ko mérito maire parcelle da ko waa parcelle mënuñu ko fay maire parcelle dañ ko mérito. da ngaa baax li nga def ci di eh, ko ñaanalee am jàmm boo ko ñaanalee am jibi moom lu ko gën a lu ko gën a ci yow mooy que moom li nga sol nee na moom li nga sol la mënul ah, ko dafa soxor kii damay tojtal damaa jib ci ay bis mag waaw ah, damay tojtal li may tojtal maa ko xam tudd Balla Gaye 2 nee Balla Gaye 2 jarul muy teg xel te xam ne yéen ñaar moom di ngeen jëfle xoolal ma xamal la benn affaire fi mu ne nii am na lu ko doy moom yàlla baax na am na lu ko doy yàlla na yàlla suturaal yàlla nañ ci àgg yóbbu ak jàmm man aw lu dul géej way géej way la am géej way lay waaye ku ma yëg ma la Mansour daf maa yëg moo tax ma bàyyi lépp barki demoo Ndiaye laan tudd mu def déplacement ñëw ba Guédiawaye ak délégation am kon nag man bisam dama ciy takk rip c'est mon frère ah. yar ba dal ba ak teey doo ko dégg ci dara am na fi ay bis mu am nu mu dee waaye déggu ko mu ŋaang ah loolu moo am solo ci doomu aadama ñu bëri nan roy ci Mansour xale bu yaru la bu teey li ma koy ñaan yàlla ko yàlla musal cat loolu rek laa koy ñaanal vraiment meeru parcelle daal méritoon na ko. waaw mérito na maire parcelle waa parcelle su ñu amee fulla am fayda nan ko fal meer kuy def ay social te nekkoo maire nekkoo dara Casamance nga nga nekk ñëpp di la waxal lu baax. waaw ba ci Saint-Louis ñëpp la waxal lu baax ngay def ay social yàlla na ko yàlla defal jàmm maire parcelle daal mérito na ko yàlla na ko yàlla defal jàmm. voilà Ndiaye toog